السلام warahmatullahi wabarakatuh. الله تعالى وبركاته مولين بك جلد يب مولين بك الإسلام مولين يدعي في جتاي muy kilifay diine yi ak kilifay aada yi ak bokk julit ak bokk julit luñ mën a doon al xalifatu waamne daifatul muridiya iyat muntaha wa rahmah wa ayyadahu wa nasarahu waa Atalma Mourad ñu ngi leen di nuyu ci ay turam di leen jox di ndokkeel di ndokkeel mboolem jullit ñu bokkal lislaam yëpp ak ku ci waay manam ci bis bi nga xam ne ñoo ko bokk ñooy bisub lislaam di bis boo xam ne de xeet la ndax dañoo jógee ci liggéeyal yàlla ci weeru koor muy weer yi nga xam ne moo gën a màgg ci àdduna di weeru alxuraan jigéen jigéen junni weer junni weer yu la kon mooy bi mooy weer li nga xam ne mooy weer li nga xam ne bu mas bu agsee dañuy seytaane téyeku muy weer wu Sëriñ Tuubaa fonkoon lool lool lool lool lool bu di bu masaa di bëgg a jeex foo toll da nga ak bineen ñu ngi leen di nuyu ci aw turam di leen jox bi kàddu yi ñu fi wax ci aw turam lañ koy wax ak ci ndigalam lu ci yées rek ci ñun la waaye nan ñu ko waxee jot na sëkk nan ko kon nag dañ ci jot lu ci suñu kàttan yam rek ginnaaw bu ma nuyoo nag mboolem mbokk julli di teew muy kilifa yi aada yi ak kilifa yi diine yi bay yuñ kenn ñuy ñaanal ñëpp di ñaan jàmm am ci réew mi am ci adduna yëpp di leen xamal ne li ñu nekk li ñu nga xam ne mooy jiit ci waxtaan wi mooy ñun ñëpp ñu gën a delluwaat jéggul yàlla tuubal yàlla ndax alxuraan xasanal bisri yi dafa am ku ñëwal te xasan bi si dafa doon ko sëriñ bi fonk bul xasan yi bis yi hëbliyal waram kooku suñ baa ngi eh, ñaan ci moom xasan yi bis yi moom dafa doon koo xam ne dafa am ku ñëw si moom mbooloo bu ñëw si bokkut ci ñëw ne ko suñ jeex ga dafa daw kooku ci wetu basar ñii ne ko doom ju góor laa bëgg tam joxe na ñii ne ko sama alal alal damaa ñaax ñoom ñëpp ku ci ne rek boo waxee mu ne istaxfirullah bu ñu demee nag ak njabootam ak ku ñuy wax Rabi'a ku ñuy wax Aswad laaj ko fa ne ko lu tax ñuy dëkk ñuy soxla te ku ne bu leen wax ñoom leen jëggal laa leen wax yaa xëy istaxfiru rabbakum summa tuubu ilayhi yursil samaa alaykum midraara wa yumdidkum bi amwaalin wa baniina wa yaj'al lakum jannaatin wa yaj'al jox leen njaboot bu góor jox leen alal seen faalu na dundalaat ak seen jox kon kon sëriñ bi ci boppam daa wax ne bala nga ñu te tiñ si nag nee na mooy tiñ si mooy jéggul waaye bëgg saw fas daw wala sa oto daw te nga jéngu ko ba nag ba mun ko daw loolu mooy ci jéggaluwoo yàlla ba nag ko gën ko yàlla kon yàlla na yàlla dimbali ñu gën a jéggalu sëriñ bi nee na ñu ngi fay ñëpp ci ñu gën a góorgóorlu ci tawxiid gën a wéetal yàlla gën a góorgóorlu bu baax ñu ngi koy digal ñëpp gën a góorgóorlu ci jaamu góor góorgóorlu ci tawxiid góorgóorlu it ci gën a ñun tari bi ñëpp ñu gën a góorgóorlu ci gën a doyloo sëñ ak di sant di sant yàlla di sant leen sëñ bi yàlla loolu mooy digal li nga xam ne nit ñëpp gën ñu digal ñu gën cee farlu gën cee mooy te bañ ko boole dara ndax taw ni ci la lépp nag dañuy wax dafa am ku ñuy wax imam al-Baghawi yi suñ bi dafa fonkoon lool daa tënk lislaam ci ne islam yaar rek la tawhidul kalimati wa kalimatu tawhid maanaam benn la suñu baat ñu jublu yi ak baatu tawhid muy laa ilaha illallah muhammadu rasulullah kon jaamu yàlla ñu góorgóorlu ji bu baax a baax jaamu yàlla nag mooy topp ni ko sëñ bi firee mooy imtisaal awaay mi ëpp naa bi mën li yàlla digle ñu sax ci li ñu tere ñu bañ cee laal abi jële ñu jële ci abi Hurayrata mu wax ne iyaakum wa zann fa inna zann aksabul adid wala tahassasu wala tajassasu ولا تناجسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباعدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا يونس بدا كان يخرج لي وكنت نجوح ما لنا وديجنتي من ميديا تنجوح ما وديجنتي نجوح لولا ما تنجوح moo tax yaay ci si kanam laay yi yàlla waxee ay njort dana ko firi bu baax a baax ndax njort mooy ci gën a mën a ci mboolem ñi ngay kon bu leen rajo kenn bu leen yëddu kenn bu leen jamante li nga xam ci ay ci man ma di ko wax mooy li nga xam ci man ci ci ma leen li ma xam ma di ko wax bu leen jëppante mooy bu leen iñaanante bu leen bañante bu doon jaami yàlla yoo ay bokk ngeen doon dégg na na ci naafi mu jële ci ibnu Omar mu ne yaa mahsar man amana bi lisaani wala min bi iman ila qalbi لا تقتربوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورات المسلمين يتتبه الله عورته ومن يتتبع الله عورته يفتحه وفي جوف أحمد يننت بنينا جلل انت إنه مرمونة يني خلنا دينا جمت جمت أجد سين قل بلين جوانت بلين تبتا أوري مني لا تبتا أوري جلدي يالله بنا تبتا أوري te ku yàlla toppatoo sa awra dana la gëcceel